kii euh, ñu ngi nuyoo ñëpp di di maanaam di sant ñëpp di bal ñëpp àq te di ballu ñëpp itam àq euh, di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu nangoon ñu sunu koor nangoon ñu sunu xeetu jaamu yàlla yëpp euh, feebar bi comme mbas mi incha allah yàlla na ko fi yàlla jëlee ci na mu gën a gaawe xam naa ne tey jii ci lañu xëyoon tey tey ci la ñu xëyoon ñun ak waa ministère de la santé benn document boo xam ne incha allah moom lañ doon gëstu ci wàllu Covid 19. ndax it nag islaam a ah, wax dëgg yàlla boo ko jiitu lu dit boo ko boo boo ko boo ko laaju lit moom day toog rek waaye doo dem ti ñëwut de doo dem ti ñëwut de surtout wàllu mbas. mbas moom ni ci l'islam yëngatoo ni ci yónnent bi leeralee ni ko saxaaba yi leeralee nga xam ne ba léegi organisation mondiale de la santé toujours dama koy faral di wax de bu ma ciy déglu yàgg nay dégg manaan ministre maanaam euh, organisation mondiale de la santé ni ko saxaaba yi réglé woon loolu ci lañ nekk yàgg naa koy wax de su ko defee moo mel ni loolu ci la ñu nekkoon tey saan euh, doon ci defar benn document incha allah document ba dina génn jullit ñëpp man koy am jullit ñëpp man koy am euh, ndax mbas moom ñëpp war a xeex ak moom ku ku ci participer wul it dina la tere doxi say soxla kon xeexu ñëpp la am naa yaakaar ne jotoon na nañu. zajurul xulo wa adabul masjid moom El Hadj Malick waxoon nañu ko waaye xam nga tey comme que émission bi dafa gàtt parce que émission yoon wi bu Alaaji Assane gay mooy ñëw bu ñu sañoon moom El Hadj Malick dama koy jox temps bu gën a gudd mais bëgguma koy bëgguma koy cof daal bëgguma koy cof dama ko bëgg a jox antenne temps d' antenne normal ah boo xam ne 15 heures ñu commencé ba 16 heures 30 mais bu ñu ko duggee tey itam amul téléphone temps bi dafa gàtt vraiment su boobaa ni ma ko bëgg ne ma yéene bi ma ci am du mën a mat ndax temps bi moo mayut loolu euh, ñu bëggoon ñu aj ko rek ci kàttanul yàlla maanaam ba altine ba altine ñu gën a am temps ba altine parce que maa ngi ko jot démb avant moo koy jot fekk na maa ngi programmé Souleymane Teliko yëpp ci incha allah dina ñëw euh, ndax moom adabul masjid bi ndeysaan ni moo ko defaree dañ dañ koy soxla ci jamono jooju dañ koy soxla ci jamono jooju moo tax ma boo koy aj ba lëndi <clears throat> boo koy aj ba lëndi foofu mu placé sax moo baax <clears throat> fofu mu placé ci lendi ba mo bax bo mo mo ne calculer lendi ba ñaata fan la ci koor gi hmm hmm su boba dafa melni batin bi da ci feñ ci katunul yalla batin bi da ci feñ ci katunul yalla dafa na buñ ko posé ba lendi nga calculer ma lendi ñaata la lendi non waxuma wéru wolof de ban 18 way deggal mu nan ma 18 man dama soxla wéru ci ramadan bi la wax <laughs> sama technicien nan ma 18 non waxuma waxuma bi de waxuma may de ci ramadan bi laa wax waaw kay su boobaa da ngay gis ne ndeysaan bu ñu fa placé moom El Hadj Malick bi day ñëw baatin bi day ñëw su ko defee ñu jàngalee fa adabul masjid comme ni mu ko jàngalee moom tege woonu jàkka waaw uh, wa man yurid wa man yurid duxula masjidin fala budda min niyatil niltal amala waaw kay buñ ci barkeloo buñ ci barkeloo wa man yurid duxula masjidin fala budda min niyatin niltal amala lu tax mu ne yan wi bi anna daaka baytullahi daaxiluhu fa zairun lillahi ok ki bëgg a dugg ki bëgg a ki bëgg a dugg ci jàkka wa man yurid duxoola masjidin ok ku bëgg a dugg ci jàkka fala budda min niyatin il faut nga yéene nga yéene wax dëgg yàlla nit niltal amala soo yéenee boo duggee ci jàkka ji li nga bëgg di ko am innamal amalu bi niyat yonent yu mee ko wax jëf ju ne yéene ko lal yéene ko lal wax dama ne kon balaa ngay dugg ci jàkk ji da ngay yéene waaw kay yéene bu rafet wa man yurid duxoola masjidin fala budda min niyatil niltal amala boo ko defee boo duggee ci biir li bëgg yëpp di ko am ndeysaan radiallahu anhu ñu ne ko lu tax mu ne yan wi bi anna daaka baytullahi daaxiluhu fa zairun lillahi waaw kay yan wi da nga war a yéene ne bi anna daaka foofu ngay dugg baytullahi néegab yàlla la waaw kay da koy xam fi nga jëm da nga koy xam da ngay xam ne daaxiluhu ki dugg ci biir fa zaa'irun lillaahi dafa ñëw di visiter si yàlla waaw kay kuy kuy si yàlla da nga koy waajal waay ndeysaan kuy visiter si yàlla danga koy da koy da koy da koy da koy da koy waajal hmm? mu indi hadis ba wa fil hadisi qaa'idun fil masjidi zaa'irun mawlaahu bila taraddudi waaw kay kii toog ci jàkk qaa'idun fil masjid kii toog ci jàkk mais zairun mawlaahu kooku dafa siyaari si bolom bila tara amul benn amul kooku amul kooku amul benn sikki sàkk ku dugg ci jàkka tokkay ku moom jàkka ji du yàlla koo siyaari si yàlla subhaanahu wa taala mawlaahu bila tara dudi waaw kay nga sa borom bul ci am benn sikki sàkk wa innahu xaqun ala al mazuri man zara maa taasisi waaw kay man boo ma seet si sama kër wallahi dama lay taral ku ñëw sama kër seet ma tey yow laa seet dinaa taal dinaa taal ataaya dinaa jëndi boisson vraiment dinañ togg ceeb bu neex de yàlla xam na ko parce que danga maa seet si waaw ndegam Taïb Socé nga seet mu ñàkk solo mi mu teral la surtout nag nga jóg nag ñëw ci néegam yàlla seet si ko moo tax mu ne wa innahu xaqun ala al mazuri ikrama man zara maa taasisi waaw kay yàlla boo ko seet see dalay teral ba pare teral la ba pare waay teral la teral ba mara day tali daf lay teral ba mara day tali lu ci des mu ne yan wi salaata rakaatay ne in yakun waxta jawaazi nafli jalla man yamun waaw kay mooy taxiyatul masjid bañ la waxoon boo duggee ci jàkk même la Hadj Malick ne la boo ñëwee rek kabaral salaata rakaatay ni da ngay kabar julli ñaar raka in yakun waxta jawaazi nafli boo fekkee waxtu ba nga ñëw dagan na ñu naafi la ca bu fekkee jamono joo xam ne nag du dagan ñu naafi la boo ñëwee dangay ngay toog waaw in lam yakun waxta jawaazi ziyaarati ay ziyaati ila jawaasi yaati arbaa maratin bi baqiyaati waaw kay bu fekkee nee na heure bi nga ñëw du heure boo xam ne dagan na nee na ñëw indi ñaari rakka ca la ca des maanaam ñeenti rakka ca la ca des tu subaar la waaw kay nee na wa jaa'i an nabiyina al awwaahi salla alayhi fatihu al afwaahi waaw jógee na ci sunu yónnente ba sallallahu alayhi wa sallam waaw al awwaahi yónnente bi nga xam ne day dellu toujours ci boromam salaam alayhi fatihul afwahi yàlla na ubbi gémmiñ yi julli koom dégg nga li muy wax sala alayhi fatihul afwahi kan mooy ubbi gémmiñ yi di ci dugal lekk du yàlla mu ne yàlla miy ubbi gémmiñ yi di ci dugal eh, maanaam di ci dugal lekk yàlla na julli ci Muhammad sallallahu alayhi wa lan la yonent bi wax laa yajlisan ahadukum fil masjidi doona tahiyatin ta'man ihtadi waaw kay yonent bi nee na boo kenn ñëw dugg ci jàkka ji rek toog déedéet wol toog mukk feeg nuyoo waloo ku dugg ci kër da ngay nuyu borom kër gi waxoon naa la ko ku dugg ci kër danga nga naan asalaamaaleykum ok yàlla doo ko nuyoo asalaamaaleykum parce que yàlla moom mooy salaam allahuma anta salaam yaa ko waxoon de allahuma anta salaam wa minka salaam yàlla kenn du ko wax asalaamaaleykum mukk ngir lan allahuma anta salaam wa minka salaam wa ilayka yarjiu salaam yàlla jàmm kenn du ko wax salaamaaleykum noo koy waxe maam alaaji Malik ne laa yajlisan ahadukum fil masjidi doona tahiyatin ta'man wa ihtadi gis nga ko bu kenn toog lu dul nuyu wuloo nooy nuyoo mu ne kabaral ñaari rakka ok kabaral ñaari rakka noonu li ñuy nuyoo yàlla ci am ndégam yan wi tarahuba bi kaffil aada an il wa ma la yurda ok nga fas yéene nag def tarahub tarahub dugg ci ko dugg ci néegam yàlla da ngay yaru waaye da ngay la waxoon yan wi tarahuba bi kaffil aada waaw kay da ngay yaru da ngay téye say cër anil maasimi ci lépp loo xam ne bakkaar la wa maa la yurda ak lépp loo xam ne yàlla kontaanu ci boo duggee ci jàkka danga koy respecté kenn du toog ak sa kilifa di tàllal say tànk ak di di di di kenn xamut kenn xamut lan la ku toog ak sa kilifa goo fonk mais danga naan pat yàlla xam na danga naan pat kon ku toog ak yàlla wax dëgg yàlla foo jëm moo tax mu ne yan wi tarahuba bi kafil aada anil maasimi wa ma la yurda waaw kay boo toogee danga naan pat ku toog ak sa borom da nga naan pat ngir lat mu ne bi isami zamani wal makaani taazimu taatun ma al isyaani waaw kay ndax it ba place ba nga toog place ba màgg ah yan jamono nga fa dem waxtu ngi waaju yot wax jamono ja jamono ja màgg na place ba màgg na waaw kay xam nga waxtu julli wu ne temps bu barkeel la temps bu màgg la parce que ci la ñuy joxe juróom maanaam ci la ñuy jaamu yàlla waxtu yi juróom bul ko jàppee kom yeneen temps yi de déedéet waxtu wi ñuy julli bokkul ak yeneen temps yi de place ba ñuy jullee bokkul ak yeneen place yi moo tax mu ne bi isami zamani wal makaani waaw kay ah màggaayu place bi ak màggaayu jamono ji waxtu julli waxtu yu dugg na ngir lan inna salata kanat ala al muminin kitaban mawquta wala alquran wax inna salata kanat ala al muminin kitaban man maa ngi xaabaabal di te dama noonu dama ciy laal rek ñu bàyyi ko ba lëndi ah wala déet ñu ngi xabaabal ba ma yaakaar ne itam ah, ñu bàyyi ko ba lendi incha allah nañu ko bàyyi ba lendi ah parce que bu ñu ko yàkkamti comme ni ma la waxoon nañ ko jox temps bu yaatu temps bu yaatu ba pare euh, calculer temps ba ca ramadan ba lendi ba ca koor ga ñaata fan la waaw kay. su ko defee danga ngay ne da ngay gis baatin bi waaw moo tax nañ ko bàyyi foofu rek mbokk yi ba altine incha allah dañ ci doon barkeelu parce que digoon nañ ko mbokk yi dañ ci doon barkeelu Mamadou Dieye rek ca Louga ndeysaan biig moom ngi may woon nan ma wax suba moom ci suñ góor gi ngay waxtaan waaw kay yu bëri woon nañ ma moo tax ma barkeelu ci waaye ñu bàyyi ko ba lundi mu gën a yaatu parce que waxtu wi tey yaatuwut yaatuwut de amul téléphone te damay damay damay tàggoo léegi moo tax comme que diggee bor la ah, ñu joxe woon ci ndeysaan bayit yooyu rek bu lundi jotee ñu gën ko yaatal ndeysaan ubbi antenne yi ah, ñu jàngat ndeysaan waxu sunu maam radiyallahu anhu ah, ah ñaata ñaata nga vingt cinq voilà nee na lundi bi mooy vingt cinq ndeysaan ok vingt cinq so ko defee ñu ñu gëstu vingt cinq ba nga xam ne ndeysaan ba diggante vingt six ba ak vingt sept ba yeneen mbir la ak fan yee ca des moo tax ma ne bu ñu ko defee rek dinañ gis bàttin bi yàlla xam na ko lundi vingt sept di nga am vingt six vingt sept ah lundi vingt cinq vingt six vingt sept ah day doy war di eh, maanaam yàlla xam na ko su ko defee loolu rek mbokk yi incha allah ba lundi jëy jëy Eh, nee naa ko dinaa ci barkeelu rek mais ñu bàyyi ko ba lundi ñu bari woon ñu mais lundi temps bi gën a yaatu 15 heures pile incha allah ah ñu mun koy bayaan ba 16 heures na nañu ubbi antenne yi ba 16 heures 30 ah, ok ko defee ndeysaan yal ñu yàlla tas ci seen barki ci barki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam eh, bu ñu dañuy gëstu rek xool in kaana li wala waladun fa ana awalul abidin ah, ok ba ñu waxee ne yàlla yonent yi malaayika yi ñooy doomu yàlla al malaayikatu banaatullahi barkeelu wut ci alquran ba ñu waxee ne malaayika yi ñooy doomu yàlla xam nga waxoon naa la ko al malaikatu banaatullahi wala ñu ne isa ibnullahi wala useyru ibnullahi am na ñett ñu ñett ñett ñoo xam ne nee nañ yàlla leen jur useyru waaw ci useyru ci juif ya useyru day neen doomu yàlla la ngir miracle bu yàlla def ci moom nee nañ Isa ibnullahi Isa doomu yàlla la ngir miracle bu yàlla def ci moom nee nañ al malaikatu banaatullahi malaika yi ñooy doomu yàlla yu jigéen yi yonent bi nag na leen may yéen gënu leen may bëgg yàlla gënu leen may xam yàlla su yàlla amoon doom ju nekk ci kaw suuf bañ war koy jaamu mais maa ciy jiitu man sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla ko ne tontul gaañu loolu na leen yaa leen gën a bëgg yàlla wala gënuñ lay bëgg yàlla su yàlla amone dom jum wacce ju ko so pour ñu jaamu ko yow yonent yàlla ya ci jitu sallallahu alaihi wasallam ma waral qul in kana li rahmani waladun fa ana awalul abidin okay yàlla ne yonent bi tontul qul ya muhammad qul ya muhammad looy wax in sabota bi burhanin sahihin lillahi taala waladun okay bu fekkee ne am na preuve yu leer yuy wane ne yàlla war nay am doom ba am doom doom jaa ngi nii فانا اول من يعبد هذا الولد الذي تزعمون ثبوته من يونتي بي مالين كوي نيكا جامو باسكو مالين غنا راغال يالا مالين غنا بوج يالا ورلو اول من يعصمه كما يعصم رجل ولد الملك لعصم ابيه اوكي دومو بور بو غيسي نيكو داغي ديف دومو بور اك داغيا هي هي دومو بور امول جوت دومو بور اك داغي بور dañ koy neexal dañ koy def lu ne doom yu buur ak dag ah yàlla mu ne yónent bi nel gaañi bu fekkoon ne man yàlla am naa buur ma man yàlla am naa doom suma amoon doom yow yónent bi ku la gën a jege yàlla ku la gën a bëgg yàlla kon kay doomu yàlla je comme doom yu buur ak dag ya yàlla xam na ko doomu buur ak dag dag ya lu tax yónent bi récité ci yónent bi tey yónent bi tey ci lu tey nañ ci tey lu tey nañ ci tey lu baax lu ne lu yàlla digle yónent yàlla Muhammad moo ciy jiitu woote waa xeetam ne leen ñëw leen kon lum tay rek lum taxaw rek nañ ci taxaw wax dama ne wala walakin hadha mumtaniun fi haqqihi taala mumtaniun fi haqqihi taala yàlla dafa am droit droit yi yàlla am ñu wan droit yi yàlla am ñu war ko koy jox moy ñu wax ne amul dom lolu droit la lolu droit wu yàlla la moy ñu bañ koy niroole ken bañ koy dendale ken buñ wax ken ne moy domam lolu droit am la wa yastahilu an yakuna lahu walad fa huwa muhaalun fi datihi waaw kay muhaal fi datihi muhaal fi datihi am na loo xam ne dama ko jomb yàlla dafa daf ko jomb jomb am doom mais doom kay kuy demam yàgg nga jógee foofu la nga màgget mënatoo liggéey ñu ne nanga am doom doom ji ndeysaan léeg-léeg mu jënd la saako ceeb waaye kuy tëlee soxla doom waaye kuy tëlee kuy jeexal mooy moo soxla doom soo génnee àdduna ñu lay ñaanal ñoo ñoo soxla doom di yàlla day tëlee wala day génn àdduna wala lan wala lan wala lan lu muy doy doom walakin haza mumtaniun fi xaqihi taala am na loo xam ne droit am droit am wax dëgg yàlla ewi aka noonu muhal fi zatihi waaw kay li annahu yu addi ila al ajs wal xaaja li gayrihi wa naqs waaw kay faiblesse ñàkk doole mënatoo liggéey loolu ki koy def nit ñi kooko tëliwu ko kooko ñàkk ko xam nga ki ki màggatloo nit téye ko di la màggatloo ba nga màgget <laughs> kooku bëri na doole di lu tax njëkkoon lay màgget moom wala kii faat nit ñi faat nit ñi kooku lu tax moom njëkkoon lay faatu kon nga xam ne kooku bokk bokkul ak yow kon bul ko askanalee li maanaam bul bul askanalee yàlla critère nit wala jikko yi nit manqué manqué yi nit new ci suñu borom waxta mu ne wal ilahu kamilu sifat ok wallahu kamilu sifati wal asma'i yàlla jikko yam mat na tur ya refat na ndeysaan wa zatihi aydan yàlla mu ne law arada llahu an yattaqisa waladan lastafa mima yaxluqu ma yasha'u subhanahu huwa allahu alwahidul qahar yàlla tontul boppam yàlla tontul boppam parce que nag bi ne yàlla am na mais daf ko métti de daf ko métti de yàlla daf ci meram meram mer ñaxtu cee ñaxtoo ñaxtu yàlla xam ko ngir lan ittaqasa rahmanu waladan ndeysaan ittaxasa rahmanu waladan daf ko métti métti métti alxuraan nee na bi ñu ko waxee asamaan xaw nay toj suuf si xaw nay dajee ko ngir lan an daaw li rahmani waladan waaw keroog bañ na yàlla am na doom suuf si xaw nay toj asamaan kaw nay mab gir lan ngir mer gu mer mer guñ mer yàlla yi ndeysaan yëf ya métti ko lool mu ñaxtu ca lool ñaxtu ca lool ndeysaan. Ah. dal di tontu ne law arada lahu an yattaqisa waladan waaw kay mais lastafa mi ma yaxluqu ma yasha waaw ah, man odom. su ma bëggoon a doom tànn nit duma ma tànn malaika duma ma tànn nangam am na yu ma fi bind yoo xam ne ñoo ëpp doole ci yooyu lay tànn ne yooyu samay doom waaye yi ngeen ma ne ma ñooy samay doom soxlawu leen samay doom duñ mel noonu ah doomu yàlla kat du yore jikkoy nit doomu yàlla du yore meloy nit kon Useyru ak malaika yeeg Isa ku ci ne rek yàlla mu ne bu ma doon ut doom du ma jël ñooñu law araada laahu an yattaqisa waladan lastafa mimma yaxluqu ma yasha'u gis nga ko li ma bind daa bëri danaa ci tànn ñu ma def leen doom waaye nag subhaanahu jomb naa ko de wax dëgg yàlla jomb naa ko de ah subhaanahu jomb naa ko de jomb am doom de ndax huwallaahu alwaahidul qahaar huwallaahu alwaahidul qahaar ok ki doon kenn tey not ñëpp wax dëgg yàlla jomb naa ko de jomb naa ko de moo tax tuuma loolu tuuma yooyu yàlla da cee ñaxtoo ñaxtu ndeysaan ñaxtu ñaxtu parce que nag tuuma baaxul bu ñu la tuuma dalay métti xam nga li tax yàlla yàlla ñu tuumaal ko muy maanaam muy ñaxtu dégam yàlla ay ñaxtu ah rawatina ak doomu aadama rek sëñ bi bu ñu la mais il faut il faut mu métti la nit nit la hmm? nit nit la moo yàlla mu ne law kaana fi samawati wal ardi aksar min ilahin la fasadat gis nga ko benn yàlla fi senegal Sénégal ñaata parti fi ñaata parti ñaata parti hmm? ren suñu élection ñaata parti ñoo dem ñaata parti dem du cinq xaw ma cinq la xaw ma ah dem nañ kii gañe gañe na senegal tàkkul dara xewut dara xewut nag ci wow Sénégal dina tàkk dara takkul parce que ñi fi di yëngatu manuñ dara manuñ dara amuñ doole parti yi seen parti ña ñay yëngatu lu ñu am amuñ dara amuñ doole munuñ ci li fi yàlla def dara waaye yàlla na ne bu am su ma amoon opposant mais ni kon asamaan ak suuf si yàqu na ñaari yàlla ñaari yàlla seen xëccoo mais ñun doom aadama yi duñ ko fekkee ñaari yàlla buñ doon xëccoo ci la dëkk bi tàkk waaw waaye juróomi parti ku ne di wor ah ah kii naan dinaa ko toj rajax kii naan dinaa ko ñu luñ mën ci Sénégal élection yi jàll na dëkk bi tàkkul dara xewul waaye bu doon ñaari yàlla nag ah duñ ko fekkee ñun wax dëgg yàlla moo tamit law kaana fi samawati wal ard aksar min ilahin luy xew mu ne la fasadat waaw kay kenn du ko fekkee kon benn yàlla fi nekk wax dëgg yàlla yàlla fi nekk yàlla amul rivalité yàlla amul opposant amul xëccoo ñaari yàlla ak ñetti yàlla xëjuñ ci xëccoo ci àdduna bi kon àdduna asamaan si toj suuf si toj doomu aadama yëpp ala moo tax yàlla moom nefi moom kenn kese yàlla amul opposant parti unique parti unique parti unique mooy subhanahu wa taala parti unique moom kenn kese moo fi nekk xëccoo wala kenn demula kenn élection moo tax mu ne subhana rabbi samawati wal ardi rabbil arshi ama yasifun gis nga ko سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما يصفون waaw kay tudd naa sella borom asamaan ak borom suuf borom arash waaw kay man yàlla dépassé naa ñi ngeen may nirooleel du ma seen morom سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما يصفون du ma seen morom yàlla xam na ko ñi ngeen may dendaleel du ma seen morom ma kenn du kenn opposé wu ma kenn opposé wu ma كون تنزيها له وتقديسا عما يقولون من الكذب بان له ولد اه نيكوي درل نيكوي درل نان امنا دوم ويفترون عليه تعالى ما لا يليق بجنابه اه ديكو سوسال لو بوكو لك لو خامني يالا جومب نكو يالا ميغا خامني خالق الاشياء عن عن عن ان يكون له ولد كي بيند ليب بيند ليب ديفي ليب كوكو داف سوخلو دوم دوم كوي تلي كوي تلي wa dee ba màgget retraité mënatoo dara say doom di jënd saakoy ceeb di indi yaa ko soxla buñ fi nekkaloon nga sonni di wax dëgg yàlla da nga koo soxla moo tax eh, doom continuité la doom continuité la doom continuité la ah ki fiy jógee mooy soxla continuité mais yàlla da fiy jógee moom soxlawu ko soo génnee àdduna mu lay ñaanal ndax yonent bi nee na doomu aadama bu génnee àdduna ñett koy jëriñ ba ma ca soxla mooy wala dun saalihun yad'u lahu doom ju baax ju koy ñaanal waaw kon doom su baaxee dimbale way juram ci àdduna doom su baaxee xettali way juram ca àlaxira xam na doom su baaxee dimbale way juram soutenir way juram fii ci àdduna doom su baaxee way jur doom ja dina ko yónnee ay mandat ca àjjana yàlla xam na ko loolay doom ju baax waaye ki léegi nag kooku moom ñun ñoo koy soxla mais yàlla daf ko soxla yàlla ku koy soxla yàlla dafa soxla ko koy ñaanal xam nga déggagu leen fu ñuy ñaanalee yàlla kan moo ko fi dégg yónneent yëpp dañ leen di ñaanal kilifa yëpp dañ leen di ñaanal mais fu ñuy ñaanal yàlla man de gisagoo ma ko déggagoo ma ko newul ci alxuraan itam ah, yàlla luñ koy ñaanal gudd fan loo koy ñaanal loo koy ñaanal yow looy ñaanal yàlla yàlla lu manqué ba ni koy ñaanal loolu moo lay wan ne yàlla du moromu kenn yàlla xam na ko boo ne yónneent yàlla Muhammad di nga ne sallallahu alayhi wa sallam kilifa yi koo ci tudd di nga ne radiyallahu anhu ma yàlla boo ko du ñande subhanahu wa taala uluwan kabira lool du ñande du ñande keneen ku dul yàlla boo ko tuddee ñaanal ko radiallahu anhu ñaan la sallallahu alayhi wa sallam ñaan la mais allah subhanahu wa taala uluwan kabira loolu du ñande du ñande da koy bakk da koy bakk ci màggayam ba da koy bakk ca màggayam ba yàlla kenn du ko ñaanal yàlla xam ko te ku dul yàlla nag soxla nga ñaan radiallahu anhu goo dégg am ñaan la yàlla xam ñan la de sallallahu alayhi wa sallam ñan la mais yàlla kenn du ko ñaanal moom ndeysaan yàlla nag mooy ñaanalaati mooy ñaanal rasulullahi inna allaha wa malaikatahu waaw kay la xooy mun a yusalluna ala nabi kon allahu yusalli ala nabi waaw kay wal malaikatu yusalluna ala nabi waaw kay kon yaa ayyuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima sallallahu alayhi wa sallam yàlla kenn du ko ñaanal waaye nag ñaanal na sayyiduna muhammad ok ñaanal na sayyiduna muhammad inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi kon allahu yusalli alayhi ok wal malaikatu yusalluna alayhi ok kon yaa ayyuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima yàlla xam na kon sallallahu alayhi wa sallam kon yàlla kenn du ko ñaanal yàlla subhana subhana rabbi samawati wal ard rabbil arshi waaw mais amay sifoon ñi ngeen may ñi ngeen may nettale mais duma seen morom yàlla mu ne fa darhum yaxuudu wa yalabu xata yulaaqu yawmahum alladi yuadun waaw kay yow yonent yi bàyyil gaañi rek fa darhum bàyyi leen rek yaxuudu ñuy xuus rek wa yalabu di fo rek bàyyi leen ci àdduna ñuy xuus ak a fo rek di ma utali morom rek ah xata yulaaqu yawmahum alladi yuadun ba keroog ñuy dajeeg bés bi nga xam ne ci laa leen doon xaar ku fi wutal yàlla morom yàlla ne na yonent yi bàyyi leen fi ñuy noos rek di xuus rek ne ci seen caaxaan yooyu rek di xuus rek ba bés bi nga xam ne ci laa leen joxoon rendez-vous dal di yegsi ok hatta yulaaqu yawmahum alladhi yuadun ok moy rendez-vous bi ba rendez-vous bi ñëw yàlla kenn du ko wutal morom yàlla kenn du ko otal dendale yàlla kenn du ko ñaanal amul doom amul nijaay amul bay amul rak yàlla amul nijaay amul bàjjen yàlla xam na ko moo tax xam nga nit bu amee mbokk day am sentiment say biir mbokk am na yoo xam ne mënoo ko fay def yàlla na ñàkk gum ñàkk kum bokkal fenn mooy tax fekk borom kër gu màgg mu fat ko ci biir gi yàlla xam na ko parce que amu fi mbokk am na yoo xam ne kenn mënu ko borom yi mbokk mënu yenn yi moo tax yàlla du nit du nit de ah am na yoo xam ne nit mënu ko ngir lan mbokk gi di am ku la yedd wala soo paree tribunal wala ko fi rey nit ñu jàpp la tëj la koy atte kum perpète yàlla yàlla noo koy ah parce que moom moom moom yëfi moom moom yëfi da gis ko nit ñi fonk nit ñi fonk ko lool yàlla di ko kër kër yi nangam yàlla faat ko ci subateel subateel mu faat ko ñëpp naan laa ilaha illallah yàlla xam na ko ñëpp naan laa ilaha illallah gis nga sayidna Muhammad bi mu génnee àdduna mais saxaaba yu ko wóoroon ñoom d'accord uñu ne yonent bi dafa war a génn àdduna yar màgg bu magon ndeysaan manam màgg bu magon ci seen beut sayyiduna Muhammad ci ñenti sahabam ya abou Abubakar ni mo bëggee won yónent bi nga xam ne moom moo am mom mo am as sadiq sadiq mom rek moko am as sadiq hmm abou Abubakar as sadiq Omar ibn al Khattab ni mu won yonenti mom mo am mom mo am al Faruq ok هو الذي فرق بين الحق والباطل الفاروق ها al Faruq keroog ba mu duggee ci lislaam la dëgg leer caaxaan leer ndeysaan moo séparé dëgg ak caaxaan al faruux hmm? Usmaan ibnu Affaan bëggee woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am Zunurayni waaw kay garaata ma goog Zunurayni borom ñaari leeru yonent bi am déet Ali ibn Abi Talib waaw kay nga ne moom bu ñu ko tuddee danaan karamallahu wajhahu mooy rakku yonent bi yonent bi war yonent bi ci biir may ko doomam jëm gën a muy Fatima ndeysaan ahlu bayti rasul waaw kay ahlu bayti rasul ci moom lañ bàyyee ko bi yonent bi faatoo kenn gëmut ne faatu na Omar daf ne ku ko wax rek ma la yonent yi warul de mukk ku ko ci dégg rek ma gor sa jaasi yàlla xam kii warul de yàlla xam na ko ah ah gaañ yi ñii lafañ ñii tëx ñii lu dañoo dofoon complètement bi yonent bi génne àdduna parce que warul dem Aboubacry daal ndeysaan mooy togoom yàgg moo ànd ak sago sa sago foo dem nag ndeysaan boo nit ñi ñàkkee sago dina am ñu am sago c'est important yow ci gaañi na leen ah xam ngeen nag coow leeg yooxu yeeg kërti kërti ji non amul solo de daf leen ndànk de man kaana yaabudu muhammadan may fa innahu fa inna muhammadan qad maata de yàlla xam na ko ku fi newoon yaakaar na yonent bi mooy yàlla di kër kër yaakaar na yonent bi la yor yonent bi faatu na de waaye nag wa man kaana yaabudullaha fa inna allaha hayyun la yamut ku fi nekkee woon yàlla yàlla moom du faatu ku fi nekkee woon yàlla yàlla du faatu de yàlla xam na ko fa tawakkal ala al hayy alladi la yamut loolu la waxoon wa tawakkal ala al hayy alladi la yamut booy jafandu jafandul ci ki nga xam ne du dee yàlla xam na ko kon ku jàppoon ci yonent bi yonent bi faatu na tey ku ko yaakaaroon yonent bi faatu na tey mais ku jàppoon ci yàlla yaakaar yàlla fa inna allaha hayyun laa yamut waaw kay kooku du fi jógee moo tax yàlla yàlla du morom nee na nee na nee na gàññi ngeen subhaana rabbi samawati wal ard rabbil arshi amma yasifoon waaw kay ñi ngeen may nattali ñëpp du ma seen morom yàlla xam na ko parce que du seen morom koo fi tudd rek ndekale koog yàlla ana mu dem na ku ko fi jëlee yàlla ana ibrahim sunu maam ibrahim ndeysaan xalilullah ay na na ibrahim ah xalilullah nga xam ne moom xaritoom gag yàlla yàlla ko sakku waaw kay sunu maam ibrahim xaritoo gak yàlla yàlla ko sakku wa taqasallahu ibrahim ah wa taqasallahu ibrahim xalilan waaw kay xaritoom gak yàlla yàlla ko sakku alamu ah ana ana ana yonent yàlla yaqub way na yaqub ah moo tax boo mënee dem baytul maqdis fii baytul maqdis ñun dañuy dem Màkka ak Médine c'est important mais fexe rek bay rocceeku di dem baytul maqdis nga tiim bàmmeelu sunu maam Ibrahim c'est important nga tiim bàmmeelu Yaquba nga tiim bàmmeelu Yusuf njaboot gu yëpp nga fa ak Sarata Sarata njaboot njaboot gu ñëpp ñëpp nga fa. ñëpp nga fa bàmmeel yu rëy yu nganda ngand yoo xam ne ndeysaan boo fa demee c'est important pour di fa dem léeg-léeg ah sunu maam Ibrahim madinatul xalil ñu ne la fii mooy bërëbu sunu maam Ibrahim wala yàlla xam na nga yem ñu ne la fii mooy Yaqub fii mooy Yusuf Sarata sunu maam Sarata ndeysaan mu nga dend ak maam Ibrahim ah loolu baax na de siiroo fil ard gudd tànk baax na de gudd tànk baax na de siiroo fil ard siiroo fil ard siiroo fil ard su ko defee ndeysaan nga gis nga gis yonentu yooyu ndeysaan suñu maam yooyu ak maqaama biñ amoon ci ponkal ak adduna yëpp yàlla ngi leen denc foofu ci baytul maqdis ñoom ñëpp seen bàmmeel yaa ngi foofu te booy te yàlla moom boobu léegi mu ngi fi <laughs> mu ngi fi de mu ngi fi de moo tax mu ne yonent bi wa tawakkal ala alxayi alladi la yamut waaw kay bo gagné jafando ko ne yow jafandool ci kudul de yow yow sayyiduna muhammad fa tawakkal ala al hayy alladhi la yamut wa kay kon su ko defé lolu moy li gëna wor de yàlla wa kay mo bàyyi lolu mo ne wa tabaarak alladhi lahu mulku samawati wal ardi wa ma baynahuma wa indahu ilmu as saa wa ilayhi turjaun wa kay wa tabaarak ha tabaarak tabaarak de moy taqaddasa laysan rabbun tabaarak aw rabbun taqaddasa aw rabbun taala uluwan rabbi allahu waaw kay ba léegi maam alaaji malik waaw kay ba demee ci taysir rabbun tabaraka aw rabbun taqaddasa aw rabbun taala uluwan rabbi allahu waaw kay mu ne wa tabaraka allazi lahu mulku samawati wal ardi wa ma baynahuma wa indahu ilmu saa wa ilayhi turjaun waaw kay ba léegi rek kooku kooku xam ne yàlla waaw kay kooku xam ne yàlla maam alaaji malik xam ne yàlla li ma doon wax léegi rabbun tabaraka waaw kay aw rabbun taqaddasa ak ban aw rabbun taala uluwan rabbi yàllaahu ok kooku xam na yàlla kooku xam na yàlla kooku bokkalewut yàlla ak kenn yàlla xam na ko kon wa tabaraka alladi lahu mulku samawati wal ardi wa ma baynahuma wa indahu ilmu saa wa ilayhi turjaun kon taasama wa taala wa zadat xayratuhu wa barakatuhu allahu maliku samawati wa maliki al ard tabaraka moo yàlla jeexalu dara yàlla bari le bari le neex le na rafet le na tabaraka bari le tabaraka rafet lena tabaraka neex le na neex le na yow moom sunu borom allazi moom mi nga xam lahu mulku samawati wal ard nguurug asamaan yëpp moo ko moom nguurug suuf yëpp moo ko moom wa ma baynahuma ak li ci diggante asamaan ak suuf lépp moo ko wa indahu ilmu saa te kañ la yowmal xiyam di ñëw mais xam-xam boobu yàlla moom kenn moo ko xam wa indahu ilmu saa kese daf ko nëbb ñëpp yowmal xiyam yonent yàlla muhammad sax xamu ko moo dañ naan la mandarga yi lii buy ñëw dina demee nale ah axiru zaman nii nii yooyu la ñuy wax de waaye kañ la moom déedéet yàlla waxoon yonent bi ne ko yasalunaka ani saati ayana mursaha fi ma anta min zikraha waaye nag wa ila rabbika muntahaha waaw kay yow seydina muhammad يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها أوكي waaye nag wa ila rabbika muntahaha waaw kay danañ la mosa laaji nag liñ lay laaj yëpp alquran bi ngay wax ak danañ la mosa laaji ne la ayyaana ay ah ayyaana yow maanaam ayyaana mursaha yowmal qiyam fan la yem kañ la ala ne ko su boobaa nag ne leen ila rabbika muntahaha xam-xam boobu nag yoruma ko dellu leen ci yàlla dellu leen ci yàlla ok لولو ماي وعنده علم الساعة وإليه ترجعون كاين لا يوم القيام يلا كو خم دا نان لا ريك بو نيو نك امنا اي امارات امارات الساعة ها امارات الساعة نيو لا عيسى دينا نيوات وإنه لعلم للساعة نيو كوي جانغلي بركي دم عيسى دينا نيوات مسيح الدجال ها bu jowee nee lay mel nee lay mel nee lay mel yooyu dañ la koy wax ci amaratu saa ay mais saa moom duñ la ci wax dara akhiru zaman lii lii lii lii ko defee ndax yooyu yàlla moom moo ko gardel boppam wa indahu ilmu saa li wax du dañ waaye ilayhi turjaoon te yéen ñëpp ci moom ngeen di delluwaat su ko defee bu ñu delloo ci yàlla wala yamliku lazina yad'uuna min dunihi shafaata illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamuun ok wala yamliku amut de du am de du am de du am allazina ñi nga xam ne yad'uun yéen a ngi leen di ñaan min dunihi te bokkul ak yàlla du ñu am ashafaata ak rëmmu dedet intervention du ñu ko am de koo jaamu te ak yàlla yowmal xiyaam du defal intervention de yowmal xiyaam du la rëmu de yàlla mu ila man shahida bil xaqi wa hum yaalamuun loolul ki ñëw seedeel la dëgg seedeel la dëgg mooy la nga nekkoon mu wax ko la nga nekkoon mu wax ko la nga nekkoon mu wax ko moo ku ku yebu rek ne ci lu baax koo fi ne dina la rëmul la nga nekkoon lay wax la nga nekkoon bu jubee mu wax ko la nga nekkoon bu dëngee mu wax ko ñoom ay témoin lañ ay témoin ay suhada lañ illa man shahida bil xaqi gis nga ko wahum yaalamoon waaw kay dee xërëm la bu dee xërëm la mënta def intervention du la defal intervention bu dee loo mënta jël di ko jaamuloo bokkul ak yàlla de la nga nekoon ci caay-caay di dina ko wax moom dina ko parce que xam nañ ko dina ko wax de la nga nekkoon ci mbaax it dina ko wax waaye yaakaar ne da ngay ne ci li neex mu ne noo ñëw yëkkati noo bàyyi leen ko nagam ak nangam de loolu amul fenn de kenn waxu ko de kenn waxu ko de yàlla xam na ko kon wala yamliku lazina yad'uuna min dunihi shafaata illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun waaw buy seede daal dëgg lay seede dëgg témoin yi kay témoin yi kay wax dëgg yàlla liñ sàkku ci yow mooy nga seede ci dëgg témoin boo defee fausse témoignage da ngay dugg ci kaso gi fausse témoignage da ngay dugg ci kaso gi te mooy shahadatu zuur kon kii seede dañ bëgg mu wax dëgg kon ki ngay jaamu te bokkul ak yàlla bu ñëwee moom dëgg gi lay wax rek la nga nekkoon lay wax rek loolu mooy illa man shahida illa man shahida bil xaqi wa hum yaalamoon fausse témoignage fii c' est interdit fausse témoignage c' est interdit nag yow rawati nag yowmal xiyam ñu ngi gërëm ñëpp mbokk yi ñu ngi sant ñëpp waxtu wi dab nañu